bon léegi revenons léegi ci blanchiment bi nga xam ne man mooy le sujet sax bu gën a important j'ai parlé de blanchiment et les gens semblent faire le malin comme si dañoo dañoo yéemu blanchiment mooy lan euh, mooy xaalis bi xam ne jaarul yoon ni ñu ko amee euh, àndul ci yoon maanaam jaarul ci yoon c'est élément euh, activité la bi xam ne activité bu illicite la ñu jël ko après jéem ko indi ci biir circuit économique formel bi lii la ñuy wax blanchiment d'argent lii nag Sénégal fii euh, euh, fi mu gën a yembee mooy dans les zone où il y pas d'État zone yooyu aujourd'hui fii Ziguinchor la dafa fa amoon conflit Touba la Touba Mbàkke bi nga xam ne foofu ñu si bëri dafa am zone yu bëri xam ne foofu sax yenn service yu état yi du fa dugg moo xam douane la moo xam police la kenn du fa dugg donc zone yëpp dafay proliférer ay activités illicites yi xam ne activités yooyu état bi laa xam na ko ñëpp xam nañ ko euh, jamono bii rek weesu daaw xaw ma euh, affaire Fares le cas Fares la avec 4 milliards yooyu la gendarmerie fekk ci biir buti bi ñu koy compter argent bi nga xam ne kii ne bokkul ci benn comptabilité di ñoom Cheikh Yérim Seck dafa na si benn waxtaan sax ñoom même na Ndour Faye si télé bi fii Fares ba ko gars yi jàpp ba la dem après fa la Euh, fii faussaires yu bëri sax ku ñu mën ci jàpp fan la gars yi njëkk daw pour mën a rëcc ay police ak ay ay ay gendarmerie c'est à Touba am nañ fa police dañ fa fekk donc li suñ ko waxee waxuñu murit yi waxuñu tarixa murit waxuñu xalif bi li ñuy wax mooy yaa benn permission yaa benn tappale bi nga xam ne mu ngi am euh, te tappale boobu ñu ngi koy def sous le couvert de région parce que tamit pour mu mën a am à Touba wala à Ziguinchor il faut que des personnes puissent porter ñooñu leen làq nit ki suñ ko làqul du fa ñeme dugg léegi nag euh, comme que wax dafa bëri man j'avais parlé de de médicaments le trafic de médicaments je suis pas le premier à le dire maître Babou xam mel ngeen teglu ko di xam moom li mu wax il est plus radical que moi. il faut camper le débat. maître Babou où on adoue Dieu, Touba est devenu un lieu de tous les trafics. Touba est quand même la sainte. C'est la sainte. Il a voulu faire la sainte. Mais nous vivons une réalité à Touba. Touba est le milieu où tous les trafics se font. Commençons par les trafics de véhicules, les rimes. Commençons par le trafic de chanvre indien. Il nous arrive au tribunal d'avoir des procès pour lesquels des saisies sont faits camions de chanvre indien. Tout bas, tout le monde le sait, les malfrats de tous bords, de tous acabits viennent se réfugier à Touba. Mais aussi, Touba, hélas, est le milieu où les faux médicaments foisonnent. Tenez-vous bien, il y a dépôts de faux médicaments à Touba contre tout simplement quarante officines de pharmacie. Ah, et, et, tout ça, c'est connu de l'État. C'est connu de l'État qui est impuissant. Mais je continue. Les dégâts occasionnés. On reviendra sur les dégâts. Oui. Avec des chiffres à la Des chiffres. Ce sont les plus faibles qui meurent de ça. Plus que les accidentés de la circulation. que sax guddal bu gën a sori pour wax ci waxu dama ne trafic de médicament kan moo ñemee weddi ni le trafic aujourd'hui capital am fii Sénégal Touba kan moo ko ñemee weddi sur plus de ba muy wax lii 700 actuellement ñu ngi wax ko 800 officines pour même pas 40 pour 40 pharmacies déclarées trafic médicament bi kan moo koy def. pour yow ko sant Diop la jaañ moo koy taxaw def ko biir biir à biir Mbàkke Touba ba pare ba pare mu am benn impunité détrompez foofu donc euh, détrompez-vous l'argent sale qui entre dans ce pays dama ne euh, am na sant yoo xam ne soo ko amee tu es préservé et protégé te loolu am na Touba dama ne ba ci faux billet ba ci xaalis bu lew bi am na si yoo xam ne Mbàkke lañu sant ak ñeneen si benn fépp trafic bi fépp la nekk ba si ñas ak lépp y a des partout mais comme que vous l'avez orienté vers Touba bëgg mu wax loolu mu euh, waxul il faut léegi nañu concentré wu si Touba damay joxe exemple bu ndaw je ne dis pas que jël xaalis bi def ko ci ay compte comme li ma bëgg a wax loo seen waxi con yi ngeen di wax noonu def ko ci ay compte envoyé ko ay sëriñ ak envoyé non je n'ai jamais dit ça mosuma ko ay compte xaalis bu salte bi nekk bitim réew buñ koy dugal fii Sénégal li nga ni drogue bi di duggee Sénégal drogue kan moo dugal fa lay jaar ci douane. dañ koy ubbi nii di ko wane drogue bi drogue bi dafa am ay cargaison spéciale bu muy dugg noonu la billet yi def tamit xaalis bi jaarul ci ay ci ay jaarul euh, wax dëgg yàlla ci ay compte wala ñu koy envoyé ay transfert je n'ai jamais parlé de transfert d' argent ay western nag maa ngi gën a xam réglementation bi je n'ai jamais parlé de compte bancaire maa ngi gën a xam les maa ngi gën a xam sentif gën leen xam gafi maa ngi gën a xam lépp li ngi di cëppi cëppi nii bàyyi leen tappale ak di konkonlu ak di faral seen bopp dama ne ni drogue bi di duggee si dëkk bi noonu la xaalis bi la duggee bi ñu koy dugal dañoo am ay passeport diplomatique ñoo ko fi dugal c' est des hommes politiques non non je ne parle pas de tous les Mbàkke Mbàkke tamit gars yi tamit tous les Mbàkke Mbàkke mun ñoo bon nag ñi si ëpp sax ñu baax lañ tous les ñi sant ñes mun ñoo bon waaye famille bu nekk am na ñu bon nag wala da bëgg wax ne fa am na famille yoo xam ne kenn bonu fa kenn nii nag waxi dof la nag il faut bañ a nekk si wax dof yi même en Europe ñu def blanchiment d' argent pour yéen blanchiment soo xasee koy dugal na nga koy dugal si biir économie bi di wut na business bi nga xam ne fa la jaarale xaalis bi business nag naa si wax ñett yi nga xam ne fii Sénégal moo ci ëpp solo moom la gars di gën a jëfandikoo euh, pour wàllu dugal xaalis boobu pour mën ko mën ko setal si njëkk ce sont euh, c'est l'immobilier am ay mbiru quincaillerie xaalis bi euh, exemple bu ndaw te lii kii mu wax léegi Pape Alé effectivement émission boobu Magaye mu ngi koy wax ne santé c'est un rapport Magaye Gaye économiste un ami ndeysaan yàlla na ko yàlla gën a dëgëral euh, euh, rapport c'est un rapport de 2014 rapport boobu il lépp li xam ne ñu investir ci immobilier fii Sénégal mu ngi doon tourner autour de 240 milliards ci année boobu ah, année 2014 ci 240 milliards yooyu yaa naa yu que 10 pour cent moo jaar dans le service bancaire moo jaar ci banque yi 10 pour cent c'est-à-dire que milliards. yenn xaalis yëpp banque gisu ko euh, l'immobilier maanaam kenkaayal yooyu daf si am ay ñuy woowee sëriñ laax ak ay homme politique yoo xam ne qui travaille avec ñuy wax les matériels immobiliers foofu raxasukaay xaalis parce que foofu mën nga fa ñëw du dugg di dugg di jënd euh, sans pour autant dem banque xaalis dañ koy jël directement recyclé dugg si biir économie bi jàppal muy benn waaye yemul foofu euh, am na beneen yoon bi xam ne yoon bu gaaw la gis nga li ñuy wax le transfert informel ni ko créé ñan lañ dañ ko créé transfert informel cest à am naa benn waaye man bu nekk Italie ak kenn ku nekk Espagne pour ñu mën a envoyé moodu moodu yi foofu mën a envoyé fii xaalis au lieu ñu jaarle ko Western Union wala Money Express wala Ria wala nangam nga xam ne yaa des frais yu xaw a gànd ñu teg ñun suñu transfert informel bi nga xam ne il suffit juste yow na demal ci Modou Diop mu ngi fële ci Espagne wala mu ngi fële ci Italie li nga bëgg envoyé Sénégal jox ko ko ñun frais yu ndaw lay defal par exemple soo bëggee envoyé 500000 sax ñun 5000 francs ngay fay frais xam li yomb na nga jox Modou 5 mille boobu lo mu ne dëkk boobu la n'est-ce pas c'est dëkk bi nga nekk mu woote fii kese kenn du envoyé xaalis ñu woote fii xaalis bu ñu am fii ñun ñu génne décaissé ko 500000 fii est-ce que comprendre li may wax ni maanaam c'est des circuits informels de transfert d'argent yi xam ne. fa ngay mën a fa ngay mën a utiliser xaalis boobu yëpp au niveau des aéroports au niveau des des des flux yu war a ñëw xam ngeen les flux financiers yu war a ñëw maanaam li ñuy envoyé biti bitim réew moodu moodu yi li ñuy envoyé Sénégal moo ëpp sax l'aide publique développement li euh, nga circuit boobu ay milliards la euh, chaque année yi nga xam ne euh, dañ koy utiliser waale pour defaraale waaw xaama may xaamay dindiwaale gars yi moyen la pour dugalaat pour régler waale xaalis boobu muy ñaareelu euh, circuit bi euh, ñetteel ba c'est le faux ñu wax le faux médicament maanaam xaalis bi dafay circuler donc euh, di nga yëpp ay outils la nga xam ne te ce ne sont dañ koo tracé man nag quand je parlais dama wax ne dafa am jamono bi nga xam ne mooy le pic des transferts waxuma jamono bu kese la gars yi saan di yóbbu xaalis non non non jamono xam jamono bi nga xam ne mooy le pic ndax jamono boobu. Euh, mooy ëpp mooy ëpp euh, xaalisu salte yooyu ce qui gën a duggal gaaw parce que jamono boobu contrôle du du am mais fu muy duggee waxuma si banque yi lay duggee si frontière lay duggee ci oto yi lay ñëwee ci ay sac lay ñëwee xam ma sac aéroport sac comme ay conteneurs yi xam ne ak ay bateau spécial yi nga xam ne fii Sénégal rek te lii man mun naa ko wax fii port Dakar bi kese am def ay bateau yoo xam ne su fi wàccee même suñu agent douanier amuñu droit laal ko di ko xool dañ koy jël sur sur proposition papier connaissement yeeg tout lépp dañ koy jël validé ko te kenn du dugg xool la moo fa nekk am na fi am na fi wala amu fi am na fi sax ay bateau yu wooyee bateau bateau première dame bateau première dame Marème Faye wala xamu leen di xew si dëkk bi dama ñun dëkk bi dañ koo xam te dëkk bi daf ñu jaral xeex daf ñu jaral dee nag donc euh, donc pour dire que rek il faut ñu sérieux xaalis yooyu fi muy duggee mooy fi drogue di duggee mooy fi arme yu arme faux arme yi di duggee mooy fi nga xam ne fa la euh, ntal sax fa la fa la faux article ba ci yére yi ay contrefaçon yoo xam ne Interpol da koy traqué yii ñëpp fu ñuy duggee fa la ñuy duggee pour yéen dañuy naaw si kaw air ba si ay contrebanque la ñuy jaar ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy duggee te jigéen ñoo ñëpp pour ñu dugg fi su amul benn benn ponkal politique wala benn ponkal sëriñ ñaar yi bu ci amul la mënul dugg ci dëkk dañ koy jàpp donc dama ne comprendre leen la moo xew te ngeen bàyyi dof doflu gi ñu ñuy wax dafa leer naa ñu waxantuuñu te xam nañu baax lu ñuy wax donc ma dama ne nag lii nag ab yëpp nag lu tax mu metti ma je vois benn impuissance euh, ak benn petitesse de l' man état bi moo metti ndax lii yëpp soo amee si dëkk dañoo war a tiit ñun ban dëkk lañu nekk dañoo war a tiit lu tax dëkk bi ñu nekk mu am ay intouchable lu tax trafic yi di am moo xam faux la wala wala sax yenn yi ay faux billet c' est de bon du faux billet ko xam la mooy faux billet waxuma ko faux billet sax mais billet vrai la mais billet bi jaarul yoon maanaam fi circuit yu muy jaar c'est des gens yoo xam ne da ngay jege nguur Sénégal c'est une plaque tournante de la mafia lii c'est un fait ci trafic ci drogue mais chanvre indien beeg yëpp fan lay jaar fan la gën a fan la gën a takkarnaase dans les zones de non état zone yi xam ne état bi amu fa accès demal au-delà de Proxal un un douanier dafay dàq ji un un kooku su duggee Porokhane douanier bi amul droit topp ko day rebrousse chemin dem yoonam un trafiquant dafay jóge ba Guinée dawal camion dugg ko biir Touba douanier bi amul droit topp ko biir Touba. Touba ak Ziguinchor jigéen Ziguinchor ba nga xam ne daf si am ay zones yoo xam ne ñoo jàpp ne dafa am ay mine wala amul paix wala amul nangam zone yu yëpp zone la yoo xam ne état bëriwu fa état du fa présent bu baax mënu contrôler trafiquants yi foofu la nekk laa wax te nag waxuma ne sëriñ ñooy trafiquants yi non mais dama ne partout nag am na si ñenn ñoo am sant sëriñ. xam na sax ñi nga ne am nañ taalibe damay sama vidéo yi passé am na ci nga xam ne taalibe mais fenkat la sàcc la ki may wax man dama dama état woo ne ma ka ngay waxal ndax man kii kooku noonu ki ko dund dama ko xam man lii ital la ital la xewee ñooñu dañoo dem rencontré ko hôtel ñëw fekk sawaay toog te sawaay sëñ la fii Sénégal bu ñëpp xam boo am taalibe donc pour dire que c'est un passeur loolu la ñuy wax un mu mooy ki xam ne dafay dafay dafay dafay dugal mbir dafay dugal donc fii lépp a ngi fiy dugg si nga Sénégal lépp a ngi fiy dugg te ñu koy dugal ku amul gàllaaj bu dëgër amoo ku la ngemb amoo passeport diplomatique nekkoo laalaake bi mën a ànd ak état mu ne mënoo fi dugal dara lu ñuy tere dañu waxante dëgg ñu ko fiy dugal yëpp ñoom la ba ci fii revendeur yu ndaw yi c'est des c'est des hauts hauts hauts placés ay kilifa ci biir ay corps koor yi booy xam ay gendarmerie laak ay police ak ñoom ñoo fiy jox ay petit dealers leen di jaayal leen versé dama ne man dëkk naa Sacré-Cœur 3 Liberté 6 zone extension rue CM David Diop foofu moo nekk fa laa màggee dama ne ji ñooñ noonu euh, am na si benn waaju nekkoon foofu ci kaw di jaay di jaay yamba gis nga pour ñu jàpp ko pour ñu jàpp ko waa commissariat wakaam ñoo ñoo def foofu descente pour jàpp ndax waa jëppal mu ñu koon jàpp devinez lu tax waa jëppal mu ñu koo jàpp dafa waroon versé jëppal jamono boobu laa dafa waroon versé jëppal chaque semaine bu versé kenn du fa def kenn du ko jàpp donc kon coow yi mooy ñun quand on parle de yenn fee yi nous sommes pas ci wàllu jàmm ci xas ay nit euh, di saaga ay nit ak non non ñu nekkuñ ci loolu man nekkuma ci waxuma ci yoon yi mais man je suis en de de laal leen lu xóot nga xam ne suñu sécurité ñun ñëpp ak suñu sécurité ay doom mais daf si am solo dañ ko war a bàyyi xel ak état bi position bu mu am nga xam ne tëddul njaaxanaay état bi nga xam ne dafa far dafa am ñu mu faral am ñi nga xam ne. Euh, wax dëgg yàlla ah, kii de moom ndeysaan kii góor jigéen la Fall Mbawor yow góor jigéen nga yow donc euh, pour dire que il des intouchables dans ce pays l' état est faible xam mu demee ba douane douane su dàqajee kenn mu dugg Touba kooku def accident réew xam moom en quoi la douane est responsable lu tax euh, lu tax ay nit. di trafiquer ñëw dëkk ci zone boobu moo xam Mbacké Touba côté boobu def seen trafic en toute légitimité xam ne daan la ci fekk voiture volée yi kan mooy jàpp oto foofu côté zone boobu quand je parlais de voiture volée ñaan non damay ciblé voiture volée kan moo koy jàpp fële à Touba dama laaj policier dañuy jàpp ay voiture ndax dañuy ay kayit dafa am kayit foofu ki moom maanaam yiy defar carte grise yuy defar fële ca zone Mbacké boobu kan moo ko moom damay xool na la sant su ko moom na la sant laa xam ngeen seeti ko il le faut dañ koy defar xam na ñaata ñu koy defaree li wax ni man j'ai des amis sax à la douane et police xam na ñaata ñu koy defaree xam nañ ñan ñoo ko moom mais ils sont impuissants mënu leen laal mënu leen laal lii lan moo ko waral lii man indexé wu ma waxuma xalif bi waxuma kilifa yi waxuma sëriñ yu baax yi ndax sëriñ yu baax yi ñu ngi fa ñu ngi def liggéey bu baax ñu ngi yar taalibe leen jàngal man je parle pas des imams des sëriñ waxuma ñoom ñëpp mais daf si am ñenn ñi xam ne mais dañoo bokk ci famille bi rek sant dañoo am sant bi kenn mënul kuy wax famille bi kenn mënul ci génne te ils sont de connivence avec de grands trafiquants yi xam ne ñoom ñooy seen complice quelqu'un nag qui est complice nag ñoom ñaar yem waaw quelqu'un qui est complice ñoom ñaar doo yem donc ay mutation yi mais lii ñëpp xam nañ ko waaye man wax ma lu bees waaye wax leen ma lu bees yi xam ne xaw ma donc dama ne Dakar est une est une plaque tournante de la mafia moo xam la moo xam objet volé la moo xam blanchiment d'argent la Dakar zone Diourbel boobu zone Mbacké Touba Casamance si ginnaaw si ginnaaw Ziguinchor ak Sénégal oriental benn partie bi nga xam ne dafa jege la frontière ndax foofu le trafic de le trafic de de l'or ak lépp mais ñu ko fay def te ay non sénégalais ñoo ko fay def ci dama ne lii yëpp mu ngi am fii la Sénégal te lii amul rapport ak ay xalif généraux amul rapport tarixa ay nit la mais nit yooyu dañuy mbubboo ay tarixa ba kenn mënu leen laal et loolu nag état bu si jubul jëm ko régler mais ça nous expose ñun ñëpp nous sommes nous sommes en danger donc euh, lii wax dëgg yàlla du question de xeex ay tarixa euh, vraiment du du quoi que ce soit kon wàcc leen te ngeen nekk nit armes yeeg fan yee weesu euh, fii ci port yaa ngeen fàtte bateau bi ñu jàpp ne dafa amoon lépp 3 milliards en munitions. dama yaa ci question leen laaj dañoo jàpp un bateau bu ñëw man agent bi tax ñu jàpp ko xam naa ko ñu jàpp bateau bi parce que bateau dafa suspect ñu gëstu ko gëstu euh, soog laaj papier imposé ñu def visite bi ñu ñëwee def visite ci bateau bi fii à Dakar naa a trouvé valeur bu 3 milliards en munitions de guerre c'était avant la campagne lii moom du ma dugg sax ci débat lan moo ci ne mais coono mooy fan la mujjee. borom bato bi dafa daw maanaam mën nga gis bato bu ñëw dugg ci port ñëw gaare fa euh, fay ay droit ñu ko war ko contrôler bi ñu contrôler ko ba pare euh, ñu bëgg wax ne la xamuñu kan moom bato bi xamuñu bato bi kan moom moom marchandise bi mu andi xamuñu ko parce que simplement jàpp nañu ko bu ñu ko jàpp loolu lu mu jee foofu euh, donc yéen dafa am li nga xam ne na gaay yi ubbi seen xel yi te xam li xew donc xam li xew am na solo trop donc ñu fii nag tuub di jéggalu donc mais nag xam leen ni dëkk bi y a une mafia politico-religieuse qui est là une mafia affairo-intellectuelle tam qui est là ces faux intellectuels là yi may ñu may andil ay contradiction c'est-à-dire c'est que leen ma fontoo man du ma yéene ay naafiq ngeen vous analysez quand ça vous arrange quand ça vous arrange pas ngeen ne tekk noppi bu ñu jëlee ay suuf dagg ko may ko sëriñ ngeen ne tekk noppi mel ni ku gisul bu ñu ko daggee jox ay àndandoo président ngeen taxaw commencé mbel mbel di yuuxu ngeen di da ngeen di alerter vous êtes de faux alerteurs ay ay naafiq ni soo soo mënul arrêté ci lépp waxandoo ci lépp mais kon nañ noppandoo ci lépp man lii mooy sama philosophie bu ma demee ba war a am sens interdit li nga xam ne waruma ko dénoncer ci dëkk bi soo baa ko naa bàyyi wax toog jàpp sama ñàpp nañ dëggu te bàyyi tappale képp ku nekk ci fi tappale yi nekkoo ci yoonu sëriñ yi tarixa boo mën ci bokk ni la war a démasquer te loolu au contraire sax ku bokk si tarixa bi moo ko war a wax pour mettre à l'aise tout